salaamaaleykum les amis internautes ñu ngi leen di nuyu ku nekk turam ak santam di bëggee bépp plateforme bi fi daje ñu ngi leen di siyaar leen bëggee tey nag ñu euh, dalal ki nga xamante ne kenn di ko présenté fii di Sénégal muy monsieur le ministre délégué Amar Modou délégué Amar di nit ku baax ah taalibe Serigne Saliou bi moom lañ dalal tey war a waxtaan ak moom ci ponk yu bari euh, délégué ñu ngi lay nuyu. ñu lay fay Diaz. waaw di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi Serigne Mountakha Mbacké mm-hmm. di ko ñaanal sunu borom yàggal ko te mu wér ba naa li mu am ci yoonu Seexul Xaddim matale ko. noonu lañ koy defee këru tarixa diine yëpp di ñaan yàlla sunu borom na leen te dooleel leen leen ba naa li ñu am seen yoonu maam yi ñu matale ko di baalu ñëpp àq te di leen baal àq te di leen siyaare di siyaare équipe bi fi nekk yëpp ah jërëjëf. fan yi ñu gis la ngay def sorti di di wax ci lu bari ci balaa ko Seck ba tax na ku ko attaque rek nga génn nga génn dal ci kawam ñu gis ki nga xamante ne moom mooy Pawlish mbay euh, doon doon nit ka nga xamante ne xarit Wally la woon démb dox nag réeroo xaw am seen diggante mu génn di wax mu am kàddu yu yëkkati sax ba walu ne Wally dafa immature li bokkoon ci xew bi mu doon def te Wally teewalu ko mu ne Wally dafa immature parce que waroon naa teew ci bésam boobu bi muy mature doon na ko teewal. yow mii sax dama laa rus rek waaye jaar gi ci jaar nii dama la doon dóor. Hmm. juste waaw Wally dafa am benn muus mu nekk këram. Hmm. muus mi euh, yaayam moo ko jur foofu sànni ko muy taxawaalu ci mbedd mi. benn bis mu dox ba dugg kër waale te muus mi daa ràggoon nag ñu koy jox lekk di ko jox naan di ko jox lekk di ko jox naan ba muus mi màgg ponkale boo demee kër waale heure boo duggee kër waale fekk ko fa mu toog ndax rus naa mi ko def ko ni mu mel ndax doo ko fekk ci lëndëm indi ko ci leer muus mi dafa jaaxle woon amul jëmukaay dugg kër waali suñu borom dimbali ko ñooñu yar ko di ko jox lekk di ko jox naan ba jonni yàlla tey boo demee foofu di nga ko fa fekk te muus moom waali jëndalu ko oto jëndalu ko kër mayu ko million mayu ko dara lekkat naan dong la ko jox waaye muus mi ngorom mayu ko mu war waali dem ci beneen kër di xaaraani kon muus moom moo gën a gore ki may tuddal waaw muus moom mooy kan muus muus dëggantaan njaay laa wax de ma ngi soo demee kër waali fekk ko fa mm. barke Serigne Saliou moom moo gën a gore ki may tëddal mm-hmm. xam nga muus a ko ëpp ngor ah, te ku muus ëpp ngor moom di wax ci moom daanaka daa amatu njëriñ mm-hmm. ndax ab baadoola moom booy wax ci moom danga koy waxal démbam démbam mooy lan xeeñoon na salte woon na tilim na ku mu jub nga daw waali di muñ di dégg lu ne ci jëmm jooju di ko defar di ko defar di ko tette di ko yóbbu ci kër yu baax yi di ko xeeñ loolu neex ba ku ko gis ñeme ko yow mii sax boo ko gisee ñeme ko waalee tax ñii sax bu demee ba di ko tàllal mi ko la waalee tax ñi mu tuddee doom ji di soxna bis bu ko ñemee waalee tax am déet xam yonent bi sax ba tax muy tuddee yonent bi doom moom bu ràññee yonent bi ba xam yonent bi waalee tax parce que moo ko jëlee ci lëndëm indi ko ci ak leer Papa wax naa ko fii nee naa ne dafa am bis mu ni nit di nga àndat moom vingt ans te waaye la doon waxal de benn bis ñëw mu fàtte vingt ans yi ngeen àndoon ci lu baax lu bon lu mu xam wax la ko ndax di ngeen xuloo foofu la waale toll nag te waxi Papa jooju moom la waale di dund mais est-ce gisoo woon ne comme que moom mooy njiit moom la fi yàlla teg mu jiite xale yi est-ce gisoo woon ne mu sang ba mu set dugalaat ci biir kër gi wanaat ko yoon bi. waaye da nga gis si ak ñàkk fayda da ngeen mos a dégg ñu ne waale dem na tooñ ma Samba wala tooñ na ma Demba ñoom ngay génn ñuy dégg di wax ñoom ñooy dem di jëw waale rek xam nga toog ki jigéen ñu lay raayal lu ne ñu def ko da ngay da ngay jëfur maytul ma nag jigéen joo xam ne da nekk sa di bañ-bañ waali fekk daa bëgg waale ngay jëw rek muy enregistré di def loolu di ko partagé ba gars yi di ci jot kooku du kooku du mbëggeel xanaa xamuñu bari dañu àndat waale waaye bëgg waale te yàlla rek tax dafa jafe ci ñoom man ki sori ki sori laa gën a gëm ne moo bëgg waale est-ce que xam ki sori laa gën a gëm ne moo bëgg waali ki nga xam ne fréquenté waale du du gis waale loolu ci ay way musul gis waale tey tiitoro waale déglu ay wayam kooku laa gëm ne moo bëgg waale. kon ñu jege ñëpp xaaj bi yëpp gëmuñu waale. ñu ci bëri laa la wax kay. am na nag ñu ko ci gëm waaye danga leen di compter ku ci mel ne ki ma tuddal lànk kaña gi nu mu tudd sax. Ah. kaña gi nu mu tudd rek. kan la ci eh, ki doon ngénte. voilà ah, mm-hmm. waaye li ko waale defal yéen ñi ku ko ci defaloon billaahi dootoo bàyyi waale ba àdduna di tukki. moom de toll moom niveau am fi mu tolloon xam nga lan la. Mm-hmm. bu ko waale defee lu ko metti donte defu ko ko laa la wax de. moom moo ko def boppam doon moom moo ko doon def waali mbir mi wëlbatiku ci kawam mais bu fekkoon nekk laa la wax waali daf koo def lu ko metti wala sax mu jëpp ci loxoom bi dugg ci otoom demoon moom ba seeraas fi ñuy feesee nag yet xar yi tëral ko bëgg koo rey mbokkam mu ci wax naar fekk nga amul bàyyi di daa gé bàyyam da ko géddoon mu gédd bàyyam te gën ne bàyyam feeñoon temps yi passé waali la defoon bàyyi def ko ndey moom papa la daan wax waali tur waali mustee jaar maa ngi dégg nag mu moom moo doon jox waali waaw bët na waaw moo doon dimbali waali moom moo doon fexe euh, bu naroon xeex ak waali wala dara moom mooy jéngu ki yor paaka bu fexe ba xeex ak moom ba waali dañ koy daw làq fenn ko yow mooy def loolu di yow soo ko xoolee xam ne amul fit di yéen tamit sa gars yi am xel am na yenn wax yoo xam ne bu ko génnee bu ko dof génnee da ngeen xam ne waxi dof la xanaa xamoo ne dof bi ni ci mbedd mi doful di hmm. ki toog ci internet yi ko tiimee ko mu naan waxi dof la kookoo dof dof googu dëgg la naturel la lu am la ku dem ba sa baay gedd la at baay ni mu fooree baay boo mën a def baay du sa baay baay bi ci geño mooy baay déggoo ma de baay boo mën a def baay xaw ma baay jille xaw ma lu mën a doon ko mën di def de du sa baay ki nga xam ne moo jur jur ci geñoom kooku mooy baay boo dalee ci kawam toj bu dalee sa kaw nga toj te àdduna du yàgg yàgg yàgg ba nga am dëgg ci sa kaw baay axi doom nag day am àqi baay day am doom day ameel baay àq baay day ameel doom àq waaye fexe ba bul sa baay ameel àq bul ko ameel àq moo gën ñun histoire am ñun liñ ci xam bëri na buñ toogoon di ko wax fii jàpp naa ne bu génnee ci mbenn mi day sëgg waaye duñ ko def day damay toog di ko déglu rek ba mu génnaat wax ci waali kii que ce soit bu waxee ne moom du daan dimbali waali yéen war ngeen ko wax da ngay fen waaw ba jox ko plus de ay jakarta yu bari da ngeen ko war a wax da ngay fen waali moo boo xam ne ay centaine de millions la mu génn ci 5 millions may ko ko moom hmm? pour mu def dara bu ma wax jakarta yi yu bari waalee ngi dëkk almadi hmm. moom waalee ko yëkkati 5 million jox ko ko ne ko demal def dara mu am xelu jënd ci ay moto hmm. bi mu jëndee moto yi amul expérience bu utiliser moto yi kon moto yi moto am expérience utiliser moto yi. Mhm. am ñoo xam ne dañ doon ñaan waali moto waali di bëgg leen a jëndal moto mu ne ko te nga bàyyi ma jox leen sama moto yi ginnaaw doogagul. mu jël moto yooyu jox ko ñooñu waali joxaat ko 5 millions. kon bu mu toog di fen di kàcc nit ki day wax dëgg fëkk leen xaq. lu mhm. ci topp. kanam ron jeex wax dëgg sëñ bi. Mhm. waaye mais parce que ñun démb ak fi la ñu fekk. booba waale dëkkagut toxuseegut booba kër gi sànc la ma nga dëkk ngor mhm. li may wax ni xam naa ko baax a baax moo tax avancé wut ci laay fam waaye cinq millions ku la ko jox jox la départ heure bii war ngaa toog sax yow di décanté ay 10 millions di ko jox waale comprendre nga baax fi ma la wax mhm. noonu la mbir ma demee amul lu mës a dimbalee waali lenn ci lu toog ci wetu seen waali waali di ko way muy fecci affaire yooyu noonu ak doxi yónnin loolu daal moom xam naa ne dimbalee na ko waali waali ko yónni muy dem dox yoon neen moom amoon na ci Pastef lool waaw. mais lu koy woowee kaña gi. parce que loolu lay ndural yaa ngi fàttaliku jamono jooju ñuy publicité Colgate amoon na benn kaña guy publicité Colgate xamoon nga ko nu mu tuddati waaye. te ba ñu génnee rek muy cappi cappi moom Colgate temps yooyu booy xam naa yéen waru leen ko fàtte wala ay tout ngeen. Colgate kañ gi ko doon publicité ci Walf RTS booba RTS barada bi moo am. te mu yor ñetti bëñ. ma boo ko xoolee xam ne moo ñoom ñaar sax est-ce que bokkuñu day bàyyi teg teg waaw. mais est-ce que du comme société bi ngeen bokk muy Wally Ballago Seck est-ce que tey yow bi mu defee loolu parce que moom nee na euh, bi mu xewlee audio na Wally pour Wally teew ci bés bi. Sénégalais problème am man bu ma kii woon audio Wally ma am kii dama koy teg nii nee gis ngeen envoyé naa ko message kon boobu lu mu deful ci moom la day fen yëgalu ko bés bi mais Wally sax du du moom moom war na wartu toll foofu at Wally da ngeen koy laaj lan moo lan mooy poroblème bi ba nangu wut dem kër waal Waali yëgali ko xewam bi bi bi muy mariage bi muy waajal laa dem wax ko Waali Waali yëkkati koppar gu bëri jox ko ko. ci mariage waaw. koppar gu bëri la ko jox mais ju Waali mariage bi lu tax ñëwu ci ma ngi woon Kaolack di tëgg Bercy Kaolack. Mhm. parce que Bercy Kaolack lendemain tabaski la chaque année. Mhm. mais lendemain tabaski boobu da doon taw. ñu pousse ko ba sur lendemain. sur lendemain bi moo nekkoon mariage am fekkoon nag sur lendemain bi sur lendemain kii bi tawut sur lendemain bi fekk ko fi dina fekk waaye Dakar te day dem mais man mii jóge naa ba Kaolack ñëw ba ñëw bi ci mariage bi te daf ma lan mooy problème bi ba waaw lan mooy problème loolu ngeen koy laaj. parce a leeral de. waaw xam na am dama koy xaar mu génn naat rek. Mhm. ma ma ma tasaare bal bi. bal bi mooy lan. bomb bi rek lépp lépp leer benn yoon ma wax ko moom jëf ju ñaaw ji mu def ba tax ñu ne ko. ah dafa am lu mu jëf ñu tax ñu abandonné ko. waaw mais takk gi waali yebaloon na ay nit wala yónnee woon na. dégg li ma la wax. Mhm. foo gis biisu ngoone gis nga fa waali. foo gis délégué Amar gis nga fa waali délégué Amar ab waali la ci kaw tali. Mhm. foo ko gis ci programme rek ci ñu nekk ci faramaare rek jëmmi waalee nga fa bu ñëwul. Mhm. foo gis biisu ngoone jëmmi waale nga fa gis. te biisu waale ko gënal Pawlish bi. <laughs> man dama dégg ñu ne soxna dara am na lu mu yónnee ci xew bi. waaye pour man bu fekkoon soxna Aydara yónnee na man du génnaati suuf di def rek nañ bàyyi loolu nañ bàyyi loolu soxna Aydara dafa nekkat borom këram di nekk at moom ci nekkin bu rafet soxna Aydara du fekk kuy xas borom këram muy ànd àndat moom doxewul noonu soxna ay dara waalee ko ñorta intéressé ko ku teg waali fenn fi mu teg la fenn fi ku teg waali ku tegul waali fenn moom doo la teg fenn parce que borom këram la am te ci borom këram lay tarbiyewu ci borom këram lay liggéey ku jëlul ku joxul borom këram cër du la jox cër ku jox borom këram cër mu jox la cër bul toog fii nag di fen naan soxna Aydara nangam nangam di nga bañ a jox waali cër jox soxna Aydara cër soxna Aydara wala di ko di wax ak yow su boobaa waali ragal soxna Aydara damay wax rek ko soxna Aydara doxewul noonu respectel waali mu respecté la joxal waali cër mu jox la cër muus moomu ma lay wax sax booy dugg kër waale mu leer na la yow mii waale ne waxoo ko muus mi dina xiiru ba nga xam ne yow mii si iblis nga. Ah, day ñeew. noonu la demee. ñu gis fan yi waale dem seen Kër Massar am ku mu fa teewal ku doon takk soxna di kilifaam ñu bëri polémique boobu lañ joxee ne dafa li mu teewalee kooku dafa waroon teewal Pawlish Mbaye kooku toogul di wax waale lu ñaaw. Mm-hmm. kooku musul envoyé audio di wax waale lu ñaaw. Ah. kooku bokkul ci ñi. Ah, kon Pawlish dafa envoyé ojo kon affaire baa ngi doon dama ni non non dama ni. Mm-hmm. kooku Baara Diouf moom ngay wax. Mm-hmm. toogul di wax waale lu ñaaw. toogul di jëw waali toogul di wax ci waali loo xam ni lu négatif la ba tax ñu koy ŋàmm ñu ñu koy ñu koy interdit ay kër waale nangam. Mm-hmm. est-ce que comprendre baax na voilà mu bokkul ci yooyu. Mm-hmm. nit daal boo demee ba nga xam ne xam nañ laat nit te kii moo la defar. Mm-hmm. dama laa tënkal wax ji sañ sëñ kii jaas dama ni la. moom bu ko waali ne woon nii ci loxo. jàpp dem ba seeraas fa ñuy yóbbu nag yeet xar yi donte foofu la mérito. ñu tëral ko jël paaka teg ci put gi waali jël paaka teg ci put gi mbokkam. tàmbalee ci baayam ba ci ndeyam ku ci wax naar feq nga ndax fi mu jaaram moom moo ne defal na ko lu ko ndey defalut mhm. defal na ko lu ko bàyyi defalut mhm. defal na ko lu ko mag defalut defal na ko lu ko rakk defalut mhm. loolu la wax de kon yaay sama baay loolu la waxoon waale kon kay kooku bu la jëlee defal la loo xam ne kenn defalu ko bu la jëlee di la def yenn yi di la seetlu ci yenn yi sama mbokk mu ci wax naar feq la sëñ bi yow li mu li ko li waale defal euh, kaña googu yow bu la ko defaloon heure bi waxatuñ ko heure boobu heure bi sax bu waale toogee nii nii nii nii ne damaa soxla benn 10 millions yow tak tak nga lëjjantul ko ndax jox na la investissement boo xam ne jural na la leneen comme nga fi may waxee te am na ñu ko jiitu ci waali fopp li ko waali defal defalu ko ñooñu te ñooñu ba léegi ñu ngi seen ngor te ndax xamuloo leen ñor waali lañ gëm te waali lañ nekkal ay nit yu baax lañ Pam Maodo Mbaye Poko mhm. kenn du ko jiitu ci waali euh, koy waxatee euh, Njoogu Mbay kenn da ko jiitu ci waali parce que mos nga leen a gis ñuy def nii wala laa te pourtant defal na ko loo xam ne defalu ko Ndiogou Mbaye defal na ko loo xam ne defalu ko Pape Maodo Mbaye te moom 2009 la fi ñëw te ñee yàgg avant 2009 ñu ngi waali mais ay gor lañ moo tax deret yi ñuy bokk mooy deretu gor waaw da ngeen ko ba léegi koy laaj lu tax sa bàyyi ñëwul ci ngénte moom nañ bàyyi waali waali juru ko ci géño di ndax papaam ñëwutoon ci ngénte jotee waale sëyut bi euh, mais euh, papaam est-ce que baayam ñëwul ci xew wi mais lu tax baayam ñëwul moom ngeen koy laaj baayam ñëwul ci xew wi ko faa gis mais yow naka nga yéen a demoon tàllal ko micro di ko laaj ba xam mu ni leen maa ko jur boo xoolee baay bi jàkk xool ko jàkk ne mooy baayam baay baay la de te nag ba ko waali njëkkee yóbbu mu tukki mhm. dafa toog di jooytu ne dafa bëgg ñibbisi waali yónnee waat ko bee mu ñibbisi tegaat ko ci wetam mu continué nekkat moom gars yi nañuy wax dëgg quoi est-ce que woo baax la wax ba mu nekkee ba ko waali yóbbee Italie muy xuslu dafa dem ba xam ni fii nangam arrangé wutu ko mu wax ko waali waali daggalaat ko bee mu ñëw waali jox xaalis bari ne ko demal nga liggéey mais nag xam nga nit ku bon moom du fàttaliku démb lu bon rek lay fàttaliku mhm. waaw boo bonee bon nga mhm. du mos a baax Euh, gannaaw loolu dañuy taxaw ci Wally ba tey rek démb ñu gis ko mu def geste bu rafet indi ku ci mel ni Kéba ci wetam euh, mu doon geste bu nga wax papaam euh, mu doon la nga xamante ne lu am solo la est ko gisoo yu mel noonu muy organiser xale yëpp ñuy ñëw nekk ci wetam ak kilifa mi nga xamante ni moom la fi coon bàyyi ñuy gën a saxal juboo boobu. waaw xam nga loolu moom c'est la famille papam pap Wally moom amul kenn kuy sant Seck di dox ci kaw suuf te joxu la cër mhm. ñi sant Seck ñëpp xam nañ Wally fi mu leen féete. Faramareen bu ko nit ñi xamee jëmmi waali la donte amoon na de waaye siiwul kenn xam ko mais bi waali ñëwee ñu laaj ko lan mooy sa drapo musique mu ni leen Faramareen luy Faramareen mu ni sama cosaanu baay ak sama maam donte baayam ma ngi fi woon mais taxul woon Faramareen siiw comprendre nga euh, moom bu ñëwee jël drapeau Faramareen wane ko àdduna ba ñëpp xam lan mooy Faramareen kooku képp ku bokk Faramaren baa ngay sant Seck rek amooñ fayam at ku mu mën a doon nag moo tax papa Keba papa Mampenda Seck kat ñoom ñëpp ñooy bàyyi waali loolu mu du lañ ba àdduna di tukki xam nañ cër bi leen waali jox ñoom it waali xam na cër bi ñu ko jox loolu rek moom solo papa la at doom boo xam ne daje nañ ci seen bërëbu liggéeyukaay dégg nga ko ni ko papa ni ko papa Keba nee na ñoo lànk booy wër ay way xaw ma lan nawal seet si waali si lu wér la kenn dàqu koo woy ci àdduna bi loolu moom lu wér la fii ku fi yor micro senegal fii di way mooy sa baay ci musique paa nag waxuma ay ñoom Youssou Ndour parce que ñu nekkatuñ ci showbiz bi ah. ay ñoom Sidi di at ñoom Pape Diouf at loolu indi woon na fi polémique dina dina yëngal réew mi de. rek ñoom gaa yooyu yëpp képp ku ci yor micro di way waale sa baay ci micro ci way. tolluñu ko fii barke Serigne Saliou Mbacke. waaw ginnaaw ci loolu lañuy ñuy jógee ñëw ci ku ci mel ni Sidi Diop gis benn mu génne benn vidéo. kan soxna. soxnaam si doo ci seet rus ko tuuti. xaw ma soxnaam xaw ma sax am na soxna am am kaña nu muy amee soxna kaña de amul soxna day romb di ku romb tëbu rek. waaw. Mhm. jërëjëf sant nañ gërëm nañ yéen da ngeen bëgg bëgg ma koy may may dóor ay bomb sa waay rek <laughs> kon kon ñu ngi lay jaajëfal kon ah waaw ñu ngi sant gërëm te xeñeel na leen jaa mhm. ngeen jëf jërëjëf <laughs>